ben comme niñ ko faral di defee rek tay ñu ak le vainqueur Cheikh Super Jamono ginaaw ndom lu am solo bi nga xam te am nako ci kaw Scorpion champion ñi ngi lay nuyu bismillahi rahmaani rahim maa leen di fay bu baax baax ginaaw ma sante yalla julli ci yonente bi sante sama ñaari wajur di santaat sama ñaari wajur ak sama yaay kinne sama yaay gina ma ngoy sante bu baax baax ak sama papa Ousmane Fall maa leen bu baax baax sama papa prési sama papa Tafa Ndiaye prési ñu koy wax Pade Sila sama papa Mor Fadam maa ngi yàlla bu baax leen nuyu. waaw nga am ndam lu solo ci kaw scorpion ci kaw scorpion ndam lu am solo mos nga mën nga ñëwaat ci combat bi. waaw combat bi mën naa si ñëwaat ndax dama jël combat bi ray sama bopp di ànd ak mafia Kara ak as suñu chauffeur ñi ñuy jàppale fajar ñi ñuy yee.

damay sant yalla bu baax baax ndax tay jii dama daan jël bo xam cheikh ko xam dañ nan mënu sax loolu ko xam nan mënu ma daan jël bo mais tay jël bi dafa yëm ñu bari santal yalla rek di wax gaay yi dinañ sax yeneen yu dàq yu ci katunu yalla suñu borom mi koy maye. ci ni nga bëree arbitre sifflé ni nga bëree lu laa nga revenir ci combat bi arbitre sifflé ba ni jël bi amé waaw arbitre dafa sifflé ma xamné ki tôt tard sama tànk yi la jëm si kon li ma ko waxoon signature ba rek ma ne ko sama tànk yi boo ko jëlee di nga julli te sa heure julli jot moom laa gëm mais du ma ko may sama tànk ma wàcc dëggal sama bopp ma xam ne kii sama tànk la jëm ma koy yóbbu gauche droite mais ni ko ko ragal ma njëkk ko songu mu génnee ma daw bal ma sol ma dem si saako yi ñëw ma xam ne kii kat ëpp ma ko kàttan ëpp ma ko doole. ah liggéey ma liggéey xam nga gën ko jox respect mooy bëreeg moom. mu may karkara ma ne ma mel ko ragal mel ni ko ragal jàppanteeg moom sukk bëtt ko mu bañ sukk flexionné xar ko mu bañ ma plaqué ko mu bañ ma jéem a cherché leneen mu téye ngem ba mu téye sama ngem moom it bëri na man ba benn instant gars yi jàpp nañ ne man damay daanu sax foofu si laa génn si action boobu mu def quatre appuis ñaari yoon la daanu. foofu laay taxaw tuuti sax moment bi quatre moo tax non bien sûr cadre abi dafa am damay conné rek arbitre siffle la nag ma juk daw yek sama supporter arbitre joxewul victoire liggéeyuma pour loolu temps bi bu démon 30 minutes mën na ko bëri ma ñëwaat bëri japp ko daan ko jël bo xamné ne kenn fogee ko won ci cheikh amoko japp té ngembam ba mu dëgër doxloo ko ay pas pensé ko dor ko mbot dama ligéy bo gisé jël mako daan suma entraîné wul won duma ko daan par mashallah nga ko léegi kenn foogewul ni sax seex mën na loolu mën na mbot mu mel mais entraîne la wala wala dafa don lam doole da cee lalu loolu am naa mais bëre boobu dafa nekk si man du bëre boobu kase parce ñu bëri dañoo jàpp ne man songu rek laay bëri am naa yu bëri dama ciy sant dama ko man maye sama làmb sama gars top sama ginnaaw di fanaan ci kaw lay wi di wàcc man boy ndaw yi man dem ba esaat nan damay waane waanul wala damay maye sama combat su ma ko na may def rek damay bàyyi laam su ma demee picc sax bu ma doon bëree moom dama koy jox cër bu mot sëkk respecté ko muusantu nag ba keroog moo koy daan quatre appuis sax bëgg naa xool ko mu daanu sax bëgg naa naa am ndam rek ndax aw ma lu ma leen mën a fayee yoruma dara ndam rek laa leen mën a béglee su ma amee ndam ñu kontaan te boo fekkee woon fi départ bi damay ragal nga jooy waa fan ok ñëw jàppale ma jibi mu ndaw dajale waa Gueule Tapée bépp képp kuy dawlu isteur ñëw def fi combat boo xam ne boo ko fekkee woon danga naan loolu musta am géejawaay grand frère yoo xam ne teewal ma ñu musta dem esat ma ne xoolee dama ne man damaa war damaa daan ba pare amaana daa des dem si biir géew bi mais daan naa ba pare ndax man sama jom ak sama xol xam naa ne bu ko yàlla di xool dima ko fay du ma sonn si làmb de. li ñu ci mën a jàng mooy bis bi fi mu leen toll woon kawe na trop. bien sûr bis bii dafa nekk bis boo xam ne wax naa ko signature ba sama bis la sama bis soxna sama jabar tey la nekk anniversaire am Sambay daf ma woowoon di ma tëgg combat sokk ñu naa ni faal spécial mu ko date boobu dafa sori. yalla may ma ma giro séance dan ko yalla may ma grand combat ci la 21 bi ma wara dan ñeu sama soxna sama soxna tay nek anniversaire am lulu mënu ma ko ñàkk loolu bu ma doon dee sax ñu moy aw non dima suli suuli noonu kon noonu laay jaar mais damay am ndam di sant at suñu borom xamne man jaam rek laa damaa sabablu gëm ko te daf ma ka may lu laa def gëm ne yalla suñu borom daf may may ndam ba pare ma liggé ko ñëw ma day ne yalla ma yalla may tam tok non de dama liggey te yalla gëmul nelawul li won signature ba kuy tedd di nelaw ak ku yewu fajar juk munu munuñoo don ben parce que bañ nako ba alcorane dañ ne la kep ku juk fajar du julli koku yoonu àjjanaam dafa leer ndax julli fajar dafa baax kon kuy julli juk fajar dem liggey ak kuy tedd nelaw ñoo bok mbër liggéey nga lol ken dor ko warante sa premier grand combat nga dan ko ban yegge nga ci am. lii waxuma la yëg-yëg mais dama kontaan boo gisee dama kontaan ndax li ma doon daj yëpp li doon daj ay jooni di ma dóor di jël yat di ma dóor jën ya di ma saaga lépp tey laa xam résultat bi tey laa xam résultat bi dama kontaan ndax li mooy sama premier grand combat surtout mu nekk arène nationale foo xam ne dañuy dox dem ñibbisi dañuy dox war nañ ko man maay quatrième ku ma bëri grand combat kon sant yàlla la ndax xale laa may sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla bu baax a baax kontaan naa trop mais damay xam ne dama ko mérité woo moo waral lii vraiment def lu tax ma war a bëri grand komba ndax kuy am combat aw ma jàppale ñi ma am as tuuti la bëriwul mais maa ngi ciy sant damay liggéey ba dee. sama combat bu ñëwee ay huit cent mille un million ay un million cinq cent lu ma liggéey lépp laay jël def si làmb su ma xëyee du ma yor dërëm ba ni may waxee yow nii amul juróom boo xam ne mën naa la kaa wax tey maa ko moomal sama bopp tey cinq bolok laa jënd sept cent cinquante mille sept cent cinquante mille di waxaat autorité Guédiawaye ñu ñëw jàppale ñu ñun doom lañ ñun doom lañ su mel ne sama pap bay di sëy moom mention spéciale ma jàppale bu baax a baax aw ma fayam Euh, bu ñu tëj waxtaan di nga sant mu nekk sa deuxième victoire de la saison fan nga jëm. waaw fi ma jëm gars yi xam nañ ko ndax man duma toog di sant du kii di tudd benn mbër man soxlawu ma lu nooy si làmb lii nii dama bëgg gars yëpp dégg ko lu nooy soxlawu ma soxlawu ma paa booy yi nga xamante ne dañoo tàng bëre grand combat muy booy yëpp ak mag yi mag yi moom ñoom ñàkk jariñook ñoom ñëpp parce que naan di faal muy tey ñoom ñëpp soxla naa leen xam lu tax waruma lu nooy soxla ma lu nooy champion laa bëgg a nekk fi Balla Gaye nekk ba jël bi loolu laa bëgg def ko kon soxla ma lu nooy si làmb tudduma benn mbër mais gars yi xam nañ ñi ma war a bëreel soxla ma lu nooy promoteur yëpp laa koy wax kuñ may jox na am mbooloo kon man mu nekk ko combat soog ma liggéey ñëw wane sama bopp lii nii du dara lii moo gën a tuuti si làmb defaguma dara si làmb lii defar laa ko jàppee su damay ànd ak mafia kara dem liggéeyiwaat xool di sama kanam li ci kanam mooy gën a metti fop fop laa la wax lii du dara waaw. bu weesoo ay ñoom ñax jariñu comme ñi nga lim ma dégg tamit ñu wax sa diggante ak Papa Yade la wax ci loolu. combat boobu mën naa la combat jànk la buñ ma fayul buñ ma fayul dara pare naa buñ ma fayul laa la wax de waxuma la ñu fay ma de buñ ma seet see suba ne ma yaa Papa Yade pare naa. li nga wax garaaw na de daa am la ameel wala. du ameel de du ameel de suñ combat dafa nga doon taxaw daaw ma war a ko fekk bëreeg moom combat mujj yàq yaa ngi dégg jeune espoir la jeune espoir la bu ma ko daanee daa am fu may yóbbu yaa may dégg man soxla ma lu nooy papa yàlla ndaanaan la dafa mën a bëre su ma ko jëlee ba fete ko kon man lan laay nekk kon dama ko bëgg pare naa laaju ma ko de làmb moo ñu boole. pare naa pour bëreeg moom bu subaa bu ma promoteur seet see suba ma bëreek moom suba waaw bàyyi nekkul moom kese ak ñeneen nag ay ñoom Pam Ndoye ak ñoom ñëpp pare naa pour bëreeg ñoom waaw. ci la mooy sa kàddu mujj. di santaat yàlla bu baax a baax santaat yàlla bu baax a baax julli si yonent bi samay ñaari waajur sama papa ama fayam di ko lancer waat message ne ko man lamb la am lamb la bëgg jàppale ma si te yàlla tax sama yaay aw ma fayam sama mam aw ma fayam sama mam aw ma fayam kiné aw ma fayam kiné sama yaay la mu ngi Italie aw ma fayam may jàppale bu baax a baax jëkkëram Ousmane Fall aw ma fayam jëkkëram Ousmane Fall aw ma fayam momit it mu ngi fi mais mu ngi ma toppatoo di ma jàppale si yu bëri amay dégg sama rak mama Ndiaye damay toog affaire yi di dëgër muy ñëw di ma jox xaalis amu fayam sama rak ana seyna amu fayam ndax jëkkëram daf may jabalé suy bëri useynu amu fayam maçon spécial di sande sama papa tafa ndjay sama papa tafa ndjay ma ngoy sande bu baax baax sama papa prési ñukoy wax pa de sila di sande sama entraîneur ku ci melni père mor fadam sama papa la di sande père mawo amu fayam père sar sari père umudi, amadi papa gandi ak papa père papa Pambaay père Pambaay aw ma fayam ak ki nga xamante ne sama papala la muy Baye Dame papa yi saako jor kooku dama koy ñaanal gudd fan Baye Dame Gueye maa ngi koy sant bu baax a baax may jàppale suy bëri aw ma fayam di nuyu sama papa bay di sëy comme nee naa maçon spécial la sama papa bay di aw ma fayam nuyu ay soxnaam yëpp chaque jour kon ni ma koy waxee di ko jiitalee. si soxna ajaa sama yaay Adja Mareetu sama yaay maa ngi lay sant combat bi gis naa ni si taxawoo aw ma seen fay yaay sama papa. Baara bu Lat Diop jàpp na si combat bi bu baax a baax Baara bu Lat Diop moo nekkal Lat Diop commune bi fii mais Baara dafa jàpp si combat bi billaahi ba pare ne ma li si kanam raw li bët ndax bi ñu si jàpp dañoo bari su ma leen limul rek duñ duñ du ma gor Baara bu Lat Diop aw fayam xaadim khadim bu Malika seri mam jara ak Asu Fall fayam khadim bu Malika seri mam jara ak Asu Fall dafa jappale ci combat bu baakha baax ñaari boulangerie mbaru jibi ñom Papa Lay ñom Pap Mbuub ak wa ñaari boulangerie ñom jibi ñom jibi jibi mi nga xamne mo yor affaireu xari virginateur xawma waaw ñu jappale ma ci jibi awma fayam ñoom ñëpp mobilisé nañ ñëw na waa kër Aziz Ndiaye ñoom sooro ñoom Khalil ñoom Jibi ñoom ñëpp aw ma seen fay. di sant géejawaay bépp équipe yi fi nekk yëpp muy jamono jaxaay daaru goltape notaire jibo amoo jamono euh, mbooloo yaakaar yëpp amoo seen fay waa géejawaay ñëpp ñoo taxaw tey jàppale seen doom di sant waa Hongrie waa terrain basket Ungari di ko jiitalee sama yaay mère Sonko ak Cheikh Wade awma seen fay. billaahi wallaahi taalaa metti woon na trop may ngémboo seen kër dama leen ñaanal yàlla may ma gudd fan. yaa ma dégg di sant sama ñi jàpp si combat bi bari ay ñoom Baye sàmba aw ma seen fay ñoom Sidi Baara waa Jaxaay su mel ni ñoom boobe ñi nga xam ne ñoo yor sëngal bi aw ma seen fay maire yi doon togg fii. mu koy jiitalee si yaa maari sama yaay doomam boogaa aw ma seen fay neer yëpp maa ngi sant di leen gërëm di leen wax ma sa coona axlu géejawaay ku jàppale seex képp ku jàppale seex maa lay sant di la gërëm bas jaxate di ko woowaat ne ko man ñoom laa am géejawaay laa am ñoom ñëpp nañ ñëw taxaw jàppale ma xam ne man doomu géejawaay laa xam ne man seen doom laa seen rakk mbaaru abu café ak waa essence ba waa pak Baye Moussa Massa Sam dawal ko tu sareet yi waa Massa Sam di ko jiitalee si Ngaara Fan ok tey dañoo def mobilisation bu rëy di ko jiitalee si jibi waa Fan ok jibi histoire goltape yëpp indi na ko fii di nuy waa Fan ok tamit waa waa golta goltape ñëpp si ñëw jàpp ci combat bi waa Fan ok sama goro yi ki su sama yaay yile paa bi ak sama papa Aline Meng aw ma seen fay sama goro aw seen fay sama soxna mention spéciale te la anniversaire am di ko ne na ko fekkee ay déwéni déwén aw ma fayam li may muñal dafa bari may ñaan yàlla may ma gudd fan yàlla may ma gudd fan li nga xam ne maa ngi sama xol ma def ko ñoom seexu aw ma seen fay ñoom seex Mara ñoom Maajoor ñoom Modou gisee bàyyi ndig aw ma fayam bàyyi billaahi lu nekk lay daj ngir man awma ma fayam ñoom Modou gisee sama booy fi toog yëpp ñoom Modou Gris Bordeaux ñoom Kora ñoom Baata ñoom Ngañ damay dégg Galas William jabaram Marème Mbaye dañuy jàpp si combat bi ñoom góoti góoti di ko sant ni ay soxnaam waa Gunaas dama leen a fàtte te mobilisation bu rëy lañ def di ko jiitalee si Muntaga a Cheikh ak ada ada ñom ñep amo sen fay wa notaire suma ma rek damay joom mais ma ngi sant waa géejawaay bépp di nuyu wa école lit mor fadam di ñaan mburu école lit mor fadam yi chaque jour yalla nañ may jitu may top sen ginaaw di leen wax na man sen rak laa ñoom ñëpp jàmm laa leen di wax ñun jël xol yi gën ka def ben di wax Assane modlo félicitations sama gaañal sama xarit sama mak tay da doon beure yalla may ko ndam ko wax ndam li yalla na ko jig mu nek ay ndam ndam ndam yalla na bu mu mës muñul di ñaanal ne ko mu ko si bientôt day amat combat di santat yalla bu bah bah baax alin sey deux awma fayam sama papa njaxa dole awma fayam sama mak ki mbaytin awma ma fayam ak sama mak wextan ak père Djili wad awma fayam barki que Muhammad. ama fayam di nuyu waa ok monsieur le maire Pala Samb ama fayam jàpp na si combat bu baax a baax ak laay goote ama fayam moom it na si combat bu baax a baax a baax ak bas bas mbaw ama fayam si jàpp si combat bu baax a baax ama fayam ngaala ama fayam jàpp si combat bi dafa bëri père Ousmane kan aw fayam papa Ablaye Sall aw ma fayam père Issa Thiaw Bas jahate wa rond Mor Fadam bayuma kenn mbaru gagel mbay aw ma seen fay limay wax ni nak dama bëgg moko paw yi tok poste courant diko sama papa chef de quartier bi bawol bawol yi tok chef poste courant bi yeb dañ may ñaanal aw ma seen fay diko ci pas chef de quartier bi sama papa la daf may ñaanal paa Ndiaye sama papa la di nuyu waa këram képp kuy toog si poste courant bi muy pa ak mairie bi aw ma seen fay maa ngi leen wax ne leen ñaani egg si na nañ ma ñaanal li ci kanam la wuri bët maa ngi dégg message bi ñu may wax chaque jour maa ngi siy bàyyi xel maa ngi leen ñaanal bu baax a baax Ousmane Bouki aw ma fayam waa Karaf ñoom Pa Golo ñoom ci Wadd ñoom ñëpp aw ma seen fay sama booy yi ay ñoom Pa Malick ah Cité xam ne dafa jóge ba Gàmbi mbay aw ma fayam. sama gaañ la bu ma demee tournoi Gambie moo may dalal sama booy yu toog fii yëpp ay ñoom benn ay ñoom tafaama ma yaa booy yu toog fii ay ñoom booy ron ñoom koora xam nga ñoom Cheikh Wade sant ñëpp daal booy Lamine gaañ ñi sonn combat dafa bëri ñoom moo du gisee booy ama seen fay sama booy bi amet du tëdd du nelaw du def dara di sant yaayam waa teere basket di leen wax géejawaay nañ jàppale ñu man waxuma kase man kase nañ génn jàppale booy yëpp xam nga ku si am combat ñu soutenir ko. santaat yàlla bu baax baax di leen nii yéen waa Géejawaay info di leen wax yéen aw ma seen fay seen liggéey si Géejawaay waxuma man mais ñëpp ko tudd yéen aw ma seen fay Bécaye Thiandoum yéen ma seen fay seen liggéey rafet na dama leen di ñaanal gudd fan lii yàlla dem ba nekk télé ba nekk loo xam ne yéen doo leen ko mos a fogee di santaat yàlla di sant samay waajur tamit sama papa Pam Ndiaye tamit dama ko fàtte woon ma fayam. waaw depuis bi may yóbbu ba léegi rek Seydina Mohamed kar ma sàllaa rek laay dégg rawatina ak sama yaay rawatina ak sama yaay. waaw di sandaat waa Italie bu baax a baax ku si ku mel ni Rome Rome képp ku nekk Rome ndax sama idole sama mag sama lépp super jamono fa la nekk. damay jàppale bu baax a baax yéene ma di woo ay sëriñam ñu may jàppale maa ngi sant waa Rome. tamit sama booy bi kaana awma ma fayam kaana yónnee na ma xaalis bëree bëri aw ma fayam sama booy la sama rakk la sama lépp la di nuyu waa parcelle unité 13 fi nga xam ne dama fa am mbooloo koñ super jamono leen nuyu bépp école bu nekk géejawaay maa ngi lay sant di la gërëm di leen wax gis naa ni ngeen ñëwoo taxawoo ma sama open press gis naa ni ngeen ñëwee taxawoo ma sama jour komba école de lutte yi nekk waay yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm sama gaay yëpp maa ngi leen di sant di santaat sama yaay bu baax a baax a baax sama yaay aw ma fayam ak sama jabar sama yaay ak sama jabar aw ma seen fay sama yaay ak sama jabar aw ma seen fay di nuyu booyu ndaw yëpp aw ma seen fay maire koñ yëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen wax. am na solo waaw yaakaar naa message bi jàll na bokk internet yi loolu moo doon kàddu yi am solo yi nga am solo yëkkati woon na ko di leen sant di leen gërëm di sant aussi suñu fidèle internet yi ku ci mel ni euh, suma mag ji Adama Ndiaye ku ci mel ni góor Baye góor bu Espagne Alam Dar bu Espagne euh, Boubacar bu Espagne di sant aussi suma technicien l'incontournable Begay